yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. Auusu billaahi mina sheytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin.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 ma wërsëgal la danga euh, rafle boo bëggee ku la sàng sàkku ko ci man noonu la koy toppee da nga bari bàkkaar boo bëggee ku la jéggal sàkku ko ci man kon loolu mooy gàttalu ubudiyya ubudiyya nag am solo di lu mënta ñàkk itam ndax bañ nañ ko ba sax suñ borom fi nga koy gën a jege mooy fi ngay gën a dunde ubudiyya bi melo yi loo ko gën a yëg yaa ngi gën a jege suñ borom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 bokk na ci li ñu war a gën a jàngal njaboot gi mooy ubodiya bi mu ndax da koo xam ne ko ixfadillaha yaa gulaamu inni uallimuka kalimaatin ixfadillaha yaxfadka ixfadillaha tajidhu tijahaka ida saalta fasalillaha wa ida staanta fastain billahi waalam anna al ummata law ijtamaat ala an yanfacuuka bi cheyin lam yanfacuuka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak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 waaye teewul loolu bëtam jël na loolee waxoon na ne qaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tugni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya gayra alilmi nañ fi ne sëñ mat la mi nett na ne buur bi ci boppam woolu na ko waaye lam ko tontu mooy qul lil amiri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 daal di tàmbali nag xasida ak alaa innani arju min al waasici al xaqi bi jaahi al muqafa naasiri al xaqi bil xaqi alayhi salaatullahi thumma salaamuhu liqaa'i sariican ixwati bil huda al xaqi wa kawni lahu abdan saciidan li abdil xaqi muxtaarihi al xaqi maanaam bayt yi xëy na ja du ko mën a leeral ndax waxtu waaye maanaam ubudiya moo feeñ ci lépp waxi sëñ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 te la ko feesal mooy wiital yàlla lam yanxu qalbi geyru tawxidil malik dégg nga lépp ma àndoon di wéetal yàlla kulli muwaxidun lidil muluki waaw léeg-léeg mu ne sama diine mooy bëgg yàlla akub yonanteem diin yaxubullaahi ma xubbi alladi al ida qama diin yaxubullaahi wa rasuli loolu wax na ci lu bare bare bare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 dafay wéet di jaamu yàlla subhaanahu wa taala yitteem moom it ca njëlbéen nga ca njëlbéen nga yitteem moo doon ñaan suñu boroom mu génne mu génne ci moom lépp lu dul ak bëggam waaw ne dalaa dañtalu ci lépp lu may bëgg suñu borom tabaraka wa taala loolu boole kook itam shawq maanaam cofeel gu tar te sax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 wér gi ko suñu borom joxit day wax ne maanaam ci qul huwa allahu ahad dama ko joxe ah asaxani yowma thulatha il ahad muqtariban bi qul huwa allahu ahad mabb gi mabb itam mboolem lu yéefar yi tabaxoon nee na ci qul huwa allahu ahad laa ko defee hadamtu maaliya banaahu man jaxan min dararin bi qul huwa allahu ahad wala hadamta dababtu anhu kulla mushrikin jaxat mujahidan bi qul huwa allahu ahad xeex gi mu xeex tubaab yi rey gi mu leen rey uffin lahum uffin li qawmin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

wa quttanii bika lahoo bi hubbika xam nga loolu suñ moodu ñoom nga xam ne mën nañoo faram fàcce waxee arab yi da nga xam ne dara maanaam dara génnu ci yàlla noonu la la woon lépp itam ilayhi haajartu wa lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam noonu loolu daa wax loolu la noonu la noonu la meloon ci di daw waxtu wu ne jëm ci yàlla laka afirru wala laka farartu min siwaaka maa ma li ixtartahu mu musallaman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 ak daarul karim ak daarul qadim ak daarul rahman ak daarul alimul loolu ci moom lañ ko xam xamee kër yu mel noonu ak dëkk yu mel noonu la ubudiya itam da koy tudd léeg wax ne man zulliya lil fardi alladi lam yalid dinaa toroxlul waaye yàlla képp laay toroxlul subhanahu wa taala zullul boobu mi ngi feeñe ci ci ci wàqanteeg sunu borom ci ci wàllu masalan tey xasida yi jéggulu yi boo ci duggoon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 loola xasida yu bare bari fi ne ca la ko taalife nga xam ne léeg-léeg mu wax ne ashki shika i xasida ko gis nga da nga dem mu yàgg mu ne anta raja i yaa samad anta batidaa i yaa ahad anta intihaa i yaa farad yaa dal baqa wal ashki shika yaa karim warham bukaa i yaa rahim na nga yërëm nag jooy yu torox li yi may may jooy fi sa kanam loolu xasidaam yépp boo jëloon rek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 salaatan tarzuquni biha taxalluqa bi axlaaqihi alkarim tàmbali nag di wax ne ilaahi ana taibu ilayka alyawma min kulli ma jara fiya min almaasi mundu kallaftani ila al an fatub alayya bi jaahihi sallallahu taala alayhi wa sallam ilaahi ana alladi laa arju siwaaka fi dunya wal axirati fakun li fihima waliyan wa nasiran ilaahi ana aljaahilu almutaxayiru alladi laa ilma lahu illa ma allamtahu fa allimni min ladunka ilman wa agnini noonu la ko toppee ilaahi ana annaimu fa ayqidni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 hada wa inni lyowma yaa wahaabu gayraka fi daarayni laa ahaabu wa innani yaa barru yaa karimu daacin wa an shukrika laa arimu mundu jazabtani ilayka yaa mucin cinaayatan minka ilaya litucin fa qumtu majzuban ilayka minka bika calayka wa raditu anka ba àgg ci yaa barru yaa gafuuru yaa xaliimu inni gumrun taaibun muliimu yaa barru yaa raxmaanu yaa wakiilu inni kasuulun naaimun akuulu yaa maaliki yaa xaaliqa alanaami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 Ah, ndax nee na suñu borom jox na ma mboolem xam-xam yi ña jiitu woon ak ñi ñëwagul waaye taxul mu nangoo xam dara waaw ah, léeg-léeg mu ne ilayka shtikai rabbi jahli wa gurbati faqudni li ixwaani bihi nga xam day jàmbat suñu borom maanaam di ko ñaan rabbi zidni loolu wax na ko ñaan ñaan suñu borom ngir mu wa allim ni nil ilma ladunniya baari an muti an taqiyan nga xam day ñaan suñu borom waxtu ne ngir mu dolli ko xam-xam dégg eh, xam-xami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 dikka abad nga xam ne wax ne suñu borom maa ngi sa bunt du ma fi jóg mukk soo ma dàqee dama amul feneen foo man a jëm ndax yow rek yaa fi yàlla yaa yàlla <laughs> radiyallahu anhu wa arda léeg-léeg ñu gis lu mel ne jàmbat waaye jàmbat googu mooy jàmbatu dégg nga ñi xam yàlla shakawtu umuri wa dambil azim te gis nga ku mel ne seydina yaquba innama ashku bathi wa xuzni ila man mën nañu ko dugal foofu kon mel na ne guddal naa jël naa waxtu yépp kooku daal mooy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu ne mooy